salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñu ngi nuyoo di ziyaara bu baax a baax a baax di leen nuyu di leen ziyaara di di def ay taxaw seetlu rek ci eh, li nga xam ne moom la eh, Omar mbay di def ci taqdisul ashxaas tuddee ko ay taamulaat eh, man nag lima jàpp mooy day fo day fo saraxatan ndax bi mu jëlee mbir mi ne da koy def man kontaanu naa ci lool ngir ne ca kuréel ga téere ba bawoo kenn nangu ci woon a wax kenn nangu ci woon a eh, débat kenn nangu ci woon a leeral eh, ba tey am kenn ku am fit ci ñoom eh, takk fitam ne da koy da koy leeral loolu dama ci amoon mbégte lool lool lool waaye Omar mbay nii ma ko gisee mu tàmbalee ko nii loolu lëntal lëntal lëntal xelu nit ñi la ak ak ak ak ak fowee ñi nga xam ne ñoo lay déglu daal maanaam fowee ñi nga xam ne ñoo lay déglu ndax muqaddima tama thaniya boobu nga xam ne moom moom moom la moom la moom la Ahmed Lo bind eh, maanaam lépp da ko lal ci ay ay ay ay da ko lal ci ci ci njaxasewaat ndax boobu fekk na téere bi génn na ba def na eh, ampleur bi muy def lépp ba nit ñi wax ci liñ ciy wax ba radd yi tàmbale kii ak yu mel noonu eh, ñu ciy débaak ak di wax loolu ngay defaat tabaa saaniya la shakka da nga waxaat loo xam ne ci biir téere bi la bokk loolu bokkul ci téere bi loolu du loo xam ne nit ki daf cee war a taxaw naan damay leeral téere bi dem jëli muqaddimat tabaa saaniya eh, di fatt nopp nit ñi ci ci ci wax na fii sàngam ci dañ su fekkee ne da ngay munaaqashe téere bi da ngay dugg ci téere bi nga tëb yooyu yëpp eh, dugg ci tasawuf tàmbalee di wax li muy wax mais lii nii lii nii ngay def nii fola te kenn xamul kañ lay jeex man li ma jaaxle mooy muqaddima bi kañ lay jeex maanaam man ba léegi ba léegi li ma bëgg xam mooy kañ la Omar Mbay kañ lay dugg ci téere bi kañ lay tàmbale di def ci te amulaatam yi kañ la koy tàmbale def ci téere bi beneen bi téere bi du téere xam-xam maanaam du téere fiq wala xadiis boo xam ne dañ ko war a firi baat par baat fa qaala nee na e, e, yaquulu mu wax ne nangam ak nangam loolu ëmatul ci àdduna maanaam loolu bëgg a yeexal mbir mi rek nga xam ne doo gaaw a egg fa nga jëm loolu la mais li mu wax ci muqaddima bi yëpp mënoon nga ko tënk ci benn ojo mënoon nga ko tënk ci benn audio te waxu fa lu bees itam wax lu bees dafa jël maanaam maalumaat yoo xam nit ñi xamoon nañ ko bu yàgg ay takfiir ak mu ak bo nangam nangam bu defee xataak bu nangam na yooyu lépp mënoon nga koo tënk ca benn waxtaan wu njëkk ba nga xam ne bi ci des yépp da nga koy dugg ci téere bi mais comme bëggu àgg ci téere ba nag da nga fay nekk baat bu nekk nga bëgg koo firi baat baat par baat wax na lii mu ne waqaala mu ne nangam na yooyu fola fo ak yab nit ñi nga xam ne di déglu loolu war ngeen a rus loolu cest à nit bu demee ba takk fitam ne day day day day day day day kii mbir mi mais na ko assumer mu dugg ci téere bi wax ci nit ñi mën cee jariñu keneen kuy def taaliq def ko mais li ngeen di def nii dafa jëmul kër dadul dara du du dara li ngeen def nii loolu maanaam képp ku xam di leen déglu lii ngeen di wax nii ay ree la koy def c'est-à-dire muqaddima tab'a mu ne nangam naa bàyyi leen seen yi ngeen def ngeen diraasa téere bi et ngeen wax ci téere bi mais li ngeen def du xam-xam maanaam man lim fam fam njëkk a xam ne Omar Mbaye tàmbali naa def ay ay ay kii ku baax la ko ku ku nitu diine la ko kii la ku nangam mais li muy def nii tappale la waaw li muy def nii tappale la na bàyyi yi muy def te munaaqa si téere bi nañ ko wax loolu Eh, amma lii mu wax ne borom taqdisu asxaas borom muqaddima taba saaniya bi loolu la ci wax ne dafay wax ak eh, muslim boo xam ne suufi la pour won ko ne ko lii la lii nangam la lii nangam la loolu c'est pas vrai wérul li tax wérul mooy page yii mu wax nii page ba mu nekkoon keroog page ba daf caa wax ne amma kitaabuna haada آه، موم يتناول الفكرة الصوفية الدخيلة على الإسلام مش هناك فكر وفيه شيء صحيح وشيء سقيم ديدت فكر بيغا خامن موي فكر صوفي تي موي فكر بو خامن دا فا نييو الاسلام دوج تي الاسلام فكر بوبو لاي تيري بي دي تناول جيمي دخيل على الاسلام موي باخول نيار منه يتناوله بالعرض والتحليل والرد عليه تي فكر بابتي الفكر الصوفي اك ببيان معارضته معارضة ماذا معارضة الفكر فكر بابو دي خلات بابو دي, دي تصوف دفا ووتي اك نصوص الكتاب والسنة ولو ووتي نصوص الكتاب والسنة loola nan nga koy mën a waxee ne loola ngay ñëw di leeral ba pare nga mujj ñëwaat naan mutasawif bi laay waxal te dama bëgg mu xam li li baax ci waxul loolu wérul de loolu wérul laa wax wérul moom dafa waroon a reconnaître ne am na lu baax ci tasawuf ibnu taymiya loolu la def ci majmu al fatawa ibnul qayim loolu la def ndax moo chara madaariju moo chara manazilu sairin bu Buharawi e, tuddee ko madaariju saalikin bayna manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in te téere boobu téere tasawuf la wax ci ci biir ci tasawuf lu baax a baax a baax lu rafet la mu àndul mu bind ne lii ànduma ca nangam ak nangam e, maqaamaat yi nit di jaar ba yegg ci boromam loolu la borom téere bi doon bind mu ñëw bind loolu e, saxal ko défendre borom téere bi itam défendre borom téere bi ci ñiy dal ci kawam. ak nangam ak nangam donte àndul ak moom ci cent pour cent waaye moom nangu na loo xam ne loolu la ñuy wax tasawuf nangu na loolu ci téeréem même ki nga xam ne moom mooy ab ali bin abdurahman ad daxil moomu nga xam ne moo bind eh, at tijaaniya ala daw il kitaabi wa sunna eh, kooku nangu na lu ñuy tuddee tasawuf Eh, défendre na ko donte am na yu ca mujj am yoo xam ne d'accord ci loolu ñun man man mii am na lu am tasawuf loo xam ne d'accord ma ci eh, ñi mos a bind ñiy bind ci tasawuf yépp dañuy saxal ne tasawuf lu baax la eh, lu jaar yoon la ijtihaad la boo xam ne ay nit ñoo ko def ci wàllu yar bakkan ak nangam ak nangam ak nangam wante après nag loolu ba muy wéy nag la am nag ay mbir yu ca dugg yoo xam ne daal ëpp na nit di ko bàyyi faw ñu radd ci daal di wax loolu daal def seeni raddu muy ibnu taymiya muy ibnul qayim muy keneen ak keneen lii lañ doon bind moom moo bind téere wax ne tasawuf du lu baax maanaam amul lenn lu mu génnee ci tasawuf ne lii baax na fa lenn Omar Mbay maa ngi ko doon laaj ne ko waxal fan la waxee ne tasawuf baax na mu may indil naan ma fii mu waxee ne maanaam fi mu waxee ne jul jullit bi nga xam ne mutasawif la daf ko bëgg a woon li baax ak li kii noonu même waxul loolu sax waxul sax loolu moom axtaa yi moo ko ci ñor te loolu ci la dëgg ba maasale tasawuf amul fu mu waxee ne baax na man ke nañ ma indil ne ma nas wii maanaam nee na ca te muqaddima tabasaane bokkul ci téere bi nag léegi nañ ma indil texte boo xam ne ci biir téere bi daf caa am ne waaw tasawuf nag li muy baax baax nangam wala naa maanaam mu tudd mbaaxuk tasawuf wala mbaaxuk benn nitu mutasawif nañ ma wax loolu ibnu ibnu ibnu taymiya mii seen sëriñ ibnu taymiya ku fonk di la euh, ku fonk maanaam ñii ñëpp day abdu qaadir jaylaani ku mati doon maanaam ñooñ day day wax ci ñoom wax ju rafet euh, bu ñëwee ci ñi mu àndul ay ibnu arabi ibnul farid eh, xallaaj ak ñeneen ñeneen dafay ñëw mu dal leen nam leen war a dalee mais am na ñum fonk am na lu mu fonk ci tasawuf mais loolu borom taqdisu asxaas defu ci dara kon bu ñëwee naan eh, dafay ñëw pour won ki nga xam ne suufi la mu won ko inxiraafaat yi pour mu mën ko moytu nangam nangam c'est pas vrai c'est pas vrai ndax lan euh, ca tàmbaliment ba ja waxoon na ne fikr bi ñuy tuddee fikru suufi moom la ñëw di wone ni mu wuutee ak sunna ni mu wuutee ak alxuraan ak sunna fikr bi ci boppam moom moo mu aaraba moo juuyaloo ak alxuraan ak sunna waaw fikr bu juuyaloo alxuraan ak sunna moom lan lañ ci mën a génnee naan lii baax na Euh, pour wone ne maanaam loola muy def noonu di wax ne tasawuf euh, dafa am lu ci nekk ci ay inxiraafaat euh, du yoo xam ne moom lay wone loolu moom moo ko mujjee def loolu loolu loolu ñëwul pour wone loolu loolu damay préciser ci loolu dafa ñëw ngir daj ji tasawuf ngir tasawuf bu ci pare waa léegi su fekkee ne dafa ñëw ngir wone ne tasawuf dafa am inxiraafaat lan moo ciy jar ngay falsifier ay waxi jàmbur <laughs> loolu koy koy wane dana ko def maanaam su fekkee ne dafa ñëw ngir wane inxiraafaat yi am tasawuf lan moo tax muy falsifier ay taarifaat lan moo tax muy wëri taarifaat bu gën a bon bu jàpp nit lii mën naa dajji tasawuf lan moo tax muy dagg waxi nit lan moo tax muy sosal doomu aadama yi lan moo tax muy waxal nit loo xam nit ki waxul loolu ci téeréem te nga ne yow pour wone inxiraafaat yi moo tax loolu c'est pas vrai loolu dafa amut loolu amul wérul ci boppam dafa ñëw ngir dajji tasawuf te nu mu ko mën a dajjee dana ko def su jaree mu falsifier wax jàmm dana ko def su jaree mu indi lu amul dana ko def su jaree mu wax lu wérul dana ko def su lu mu ko jaral jaral nag ko pour mu génne tasawuf ci suura boo xam ne nit du mën a du mën a liir loolu dem dugg ci tasawuf te Eh, gaa yi fi ñu toll ci bañ tasawuf yëpp téere bi moo leen ko teg waaye li muy wax ci ay inxiraafaat ak nangam ak nangam yu mel noonu loolu jiitu nañ ko ci bu yàgg yàgg tasa mu tasawifuuna bi anfusihim ñoom ñoo doon def loolu luma al li abi nasr as-sarraj ak tuusi nga xam ne trois cent soixante trois cent soixante dix-huit côté yooyu lafaatu kooku téeréem boobu di luma te moom sukkandiku ci lu bari xanaa xamul luma moom lu mu def ci ci mbir moom luma maanaam li mujj ci téere bi lépp ci wàllu eh, wone njuumteeg ñenn ci mutasawifa yi di leen tontu ci loolu la jëm maanaam zikru man galita eh, min al mutarassimina bi tasawuf wa in wa min ayna yaqacu al wa kayfa eh, wa kayfiyatu wujuhi dalika Eh, loolu lay indi ñi nga xam ne dañoo jaar ci tasawuf te déraper jaar yoon woo xam ne wala ñu am ay gisin yoo xam ne eh, wérul eh, ak fan la seen gisin boobu fan la leen fan la leen duggee ci ban côté lañ juume di indi di indi di indi ñoom ñëpp ku nekk lan nga wax ak fan nga juume ak nangam nangam yii muy wax ci téerim yëpp borom borom borom borom lu ma indi na ko dajj ko xanaa kon su fekkoon ne moom dafa bëgg lu baax te bëgg nee na day wane ay inxiraafaat xanaa nga indi misaal ne mutasawifuuna bi anfusihim dañ doon xeex loolu min zamanin qadim lañ ko tàmbali woon kon li muy def du lu bees bu fekkoon ne moom lay def laa wax mais defu ko nag foofu borom borom lu ma mi ngi fay indi zikrul firqa alladina الفرق الذين غالطوا وطبقاتهم وتفاوتهم في الغلط ذكر من غلط في في الفروع التي لم تؤدهم إلى الضلالة ذكر الطوائف الذين غلطوا في الفقر والغنى ذكر الطوائف ذكر من غلط في التوسع وترك التوسع من الدنيا بالتقشف والتقلل وكذا كذا ذكر طبقات الذين فتروا في الإرادات وغلطوا في المجاهدات إندي كونك ما maanaam نيغا nga xam ne ak woomle diggante boobu am na lu luñ ci déggul ba def nangam ak nangam mu indi fan lañ juumee indi tontu bi mu leen tontu indi ñeneen ñi nga xam ne ci wàllu àdduna dañ koy bàyyi ak dañ cee war a woomal ñu mu indi leen indi ñi nga xam ne ci wàllu mujaahada wàllu jaamu yàlla dañ cee saaraan mu indi ñu mel noonu kii leen zikru alladina galatu fi tarki taami wala uzlati wal infiraadi wa gayri dalika ñooñu tamit ñi nga xam ne dañoo gis ne dañuy bàyyi lekk dootuñ naan di wéet bàyyi nit ñi nangam ak nangam mu mu ñëw eh, dal seen kaw gis ne fii ak fii ak fii lañ juumee yoon wi du woon lii lii la mag ñi jàngale woon loolu loolu def nañ ko ba pare te lii lu ma def nag lu ma moo jiitu gaa yi moom bi mu defee loolu ba pare la borom kashful mahjub ñëw bind kashful mahjub sukkandiku sax ca lu nag ñëw tamit def lu mel noonu ci wàllu dàjj yenn yi nga xam ne moom dëppoowu ci gaa yi te am na ci ay firnde yuy wane ne yoon wi doxewul nii mutasawwifoon yi dañoo dëggu ci seen bopp képp koo xam ne dafa gis ay njuumte dana bind loolu ci téeréem lu kashful mahjub boobu ba mu ci jógee e, tabaqaatu tabaqaatu suufiya ñëw bu abee abdurahman sulami Eh, abi abdourahman sulami moom ba mu fi jógee risalal qushayriya ñëw ñii yëpp ay téere la yoo xam ne dana am ay inxiraafaat yoo xam ne ay jàdd yoo xam ne ñoom danañ ko souligner ba pare def ci ay raddu ci seeni téere loolu nag waxuma la ay qawaid tasawuf ak après ñoom abul abbas zarro zarruq ak ñoom ñoom ñoom ñoom chaaraani ci alyawaqid wal jawahir fi aqaid al akabir eh, ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne bay nañ ci seen waar ba ci suñ mag ñi am na loo xam ne ci tasawuf ñoom d'accorduñ ci ñu bind seen téere gis ne nangam masaalikul jinaan boo ko liiree da xam li ma lay wax ah, ak ñeneen ak ñeneen Cheikh Sidi Ahmed Tidiane bi mu ñëwee ci tasawuf am na lu mu loo ne lii nangam ak nangam changé waaw ndax lii njuumte la goo xam ne euh, euh, euh, ay motasawifoon jaar nañ ci nangam ak nangam kenn du ko répété. loolu nag njuumte googu xam nga firaq yëpp ñoo koy am waaye mutasawifun ñoo gën a bind ci seen bopp ñoom ñoo gën a bind ci seen bopp ci wàllu yu mel noonu kon su fekkoon ne maanaam wone lu njuumte pour nit ki mën kaa moytu kooku ki ko man mooy ki jàpp ne li muy li muy wone nii am na leneen lu baax mais gisul loolu wax ko ci téere bi itam kon boo fi nekkee naan dafa ñëw pour nangam naa déedéet ñun xamala lañ bëgg nga bàyyi li ngay def lépp te dugg ci téere bi te dugg ci téere bi man ñun loolu lañ soxla mais soxla wuñ ngay théorie ci muqaddima tab'a thaniya nga xam ne mënoon nga ko effacer ci téere bi amu ci benn njariñ waaw loolu ay lay la rek maa muqaddima tab'a thaniya ay layla yu ñuy teg ngir ngir ngir maanaam tension bi nga xam ne téere bi amoon na ko ñuy indi loo xam ne dana mën a dana mën a euh, defal nit ñi wala nangam nangam yooyu amul solo duggal ci téere bi risaala ilmiya la nga liir ko et nga def say muraqasha te bañ nag di fi nekk di di wax par benn baat ak par nangam ak waqaala nee na ak yu mel noonu yooyu fola euh, léegi nag man li ma jaaxal mooy su fekkee ne bii di ñëwaat dafa nar a wax saalisan indi subuhaat yeeg la ca borom téere bi teg euh, li lay wone ne loolu fekk na téere bi am ba pare ñun téere bi lañ soxla ko ko naqdu maanaam lii lii muy liir di ko firi lii bañ koy bind 2001 la 2001 lañ ko bind eh, ci tabaa saaniya téere bi bañ koy moolaat muqaddima jëm ca def loolu dafa am benn njariñ li tax amul njariñ mooy lépp lu mu bëgg a laay foofa lañ koy bind te ñun li ñu soxla mooy risaala bi man li ma gën a taayal mooy dégluwaat Omar Mbay ndax bu ñëwaatee dafay dafay dafay continuer risa maanaam téere te téere te te muqaddima bi quatorze page la quatorze page yow yaa ngi ci sixième page bi léegi kañ ngay àgg ba mën a jeexal loolu ba mën a jublu ci téere bi loolu kan moo am jot di ko fi xaar kan jot di ko waaw man daal euh, daanaka man li ma soxla woon te jàppoon ne dinaa ci jëriñu jàppoon naa ni moom dana ko def te defu ci dara kon nag man li ma gëm bëggam ko mooy téere bi ñoom mënuñ ci wax lu leer waaw ndax su fekkoon ne mën na cee wax lu leer danañ jublu ci téere bi wax ci waaye duñ nekk eh, di indi ay tappale ci ci ci ci ci ci muqaddima bee waaw di ca wax eh, loolu daal laa amoon ci loo xam ne moom laa doon moom laa doon kii eh, su lu ñëwoon naa fi keroog nag benn benn foot maa ngi leen koy dimbalee pour bu ñuy tabaxuwaat téere bi marratan thalitha waaw ci rakizatayni asasiyatayni la xadaarata bi maazilin anha an huma lay doon waaw fii tamit wax na fi sànq ne suufi boo xam ne yuridu an yaish yuridu an yaisha loolu ay xatamat bayi la daanaka ñëpp weesu nañ weesu weesu nañ loolu du borom téere bi moom moo àggul foofu wala nangam ak nangam xatala boo xam ne dafay am ci bind waaw pour ñi nga xam ne ñoom ñoo koy kii ñu ñu bàyyi ko xel yuridu an yaish suufiyan li sababin min a asbab déet yuridu an yaisha waaw salaamaaleykum wa rahmatullah salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñu ngi nuyoo di ziyaara bu baax a baax a baax